dal ak jàmm mbokk internautes yi manifestation bu musta am Sénégal lañ nar dund ci mercredi bi bu 20h jotee jàpp 20 di 10 ñu ko woote nekkul ñenn ñu dul waa Yewwi Askan Wi ànd seeg ki nga xamante ni mooy président Ousmane Sonko waaye nag manifestation boobee Ousmane sunko mu ngi ci woote képp koo xamante ni sénégalais nga te yëg ni carrément dund ki tar na ci yow bu 20h jotee rek ci mercredi bi na nga toog sa kaw balcon bu fekkee oto nga yor rek bu 20h yow nga klaxonné nga xamante ni mooy seen balcon dañu ut li nga xamante ni mooy calastrol di def li nga xamante ni mooy bruit yi pendant dix minutes loolee sax nakar yi ñi nga xamante ni mooy ña nekk ca Benno Bokk Yaakaar muy jigéen ña rek ñoom rek ñu ngi dénoncé li nga xamante ni la waa coalition Yewwi Askan Wi nara def si mercredi bi ñoom nag ñu ngi koy nakkorlu waaye nag ñi di waa coordination nationale des femmes de Benno Bokk Yaakaar bëgguñu dégg benn yoon li nga xamante ni mooy concert de calastrol bu waa Yewwi Askan Wi annoncé si lundi bii rek te nar ko amal si mercredi bii nii rek ñu dëgmal bu 20h jotee ñu ànd seeg ki nga xamante ni mooy seen présidente nationale di madame Ndeye Marème Badiane moom nag mu ngi wax ni li nga xamante ni mooy concert de cholestérol bii waa Benno waa Yewwi Askan Wi nar a def moom rek mu ngi koy jàppee ni loolee tapage nocturne la surtout nag lu ñuy naan si veille bi rek wala sax si suba si rek la ñi nga xamante ni ñooy organiser lii di examen de certificat d'études primaires noonu la nar a déranger kon mel ni li nga xamante ni mooy la waa Yewwi Askan Wi ànd seeg seen président Ousmane Sonko lu ñu wootee dafa mel ni déranger na ñi nga xamante ni mooy waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom rek dinañ def ab ndaje di naqarlu nga xamante moo nar a xew si mercredi bi ndaxte nee nañ loolee dañuy déranger yenn Sénégalais yi rawatina ñi nga xamante ni ñoo nekk si hôpital yi ak ñi nga xamante ni dañuy euh, na am li nga xamante ni mooy crise cardiaque loolee baaxul si ñoom ak nit ñi nga xamante ni dañoo âgé loolee waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom rek ñoo ko euh, annoncé nag bruit boobu baaxul ci Sénégal te nañu moytu di ko def moom mi nga xamante ni moo jiite femme yu euh, coalition Benno Yaakaar nee na nag ñii di waa Yewwi Askan Wi seen combat politique boo xoolee dañ koo basé wu ci li nga xamante ni mooy internet personnel te loolee warul nekk seen combat kon femme yu Benno Bokk Yaakaar ñu ngi fàttali nekk combat bi nga xamante ni moo engagé Sénégalais yi warul nekk li nga xamante ni euh, mooy maturité wala sax immaturité autorité ne la nag mu ngi appel à la révolte le 17 juin bii nii rek lañ ko amal.